yéen a ngi teewlu IYAT TV maître Ousseynou Fall bokk ci ñi nga xam ñoom ñooy layal Ousmane Sonko moom nag àdduna jëmale ci mbir yu bari fa mu dooree ay kàddoom nag mooy lu jëm ci mbirum maître Juan Branco ak maître Babacar Ndiaye muy ñaari avocat yi nga xam ne tegoon nañ leen loxo fii ci réewum Sénégal mu jàpp nag ne bu fekkee ne ñoom ñaari ñu tey génnee nañ leen fa ñu nekkoon xeex la boo xam ne association des jeunes avocats du Sénégal ñoo ko xeex lëkkaloo ci nag ak ñeneen ñoo xam ne nekkuñu sax ci réew mi lu mel ne bâtonnière bu Paris ak collectif bu avocat yoo xam ne ñu nga nekkee ca France ak ca Espagne moom nag maître Ousseynou jàpp na ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon te doonoon ay avocat liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko fi mu jëm ci sàmm ak ak yelleefu ñi nga xam ne ñoo di avocat yi kenn wër ko seetaan muy nax saay ñu ngi ñaaw lu mbir yi nga xam ne ci leen sukkandiku pour teg loxo ki li nga xam ne mooy di maître Juan la mu jàpp sax mooy Juan Branco bu fekkee tey jii jàpp nañ ko li ko waral lenn dong la mooy dossier bi nga xam ne jël na ko yóbbu ko ci CPI te nag mu tiital nguurub Sénégal mu jàpp ne ne kon mbir moomu moo tax procureur di ko ngir teg loxo ci li nga xam ne mooy avocat bi di maître Juan Branco bokk ci ñi nga xam ñoo daal Ousmane Sonko te féete ci réewum France moom nag maître Ousseynou Fall daanaka rek bàyyiwul dara ki li nga xam ne mooy ministre de la justice Ismaïla Madior Fall mu jàpp nag ne moom respecté wul li ñuy wax secret de l'instruction ndax nag bëri na ay mbir yoo xam ne mi ngi koy teg ci place publique bi te kenn waru ko woon a dégg ci penc bi leneen loo xam ne wax na ko mooy Ismaïla Madior Fall moom dafa jàpp ne 2021 ak tey jii dafa nekk rek di jëfee ndigal yi nga xam ne nguur gi fi nekk ñoo koy jox ngir gàllankoor opposant bi nga xam ne moo di Ousmane Sonko leneen loo xam ne nag wax na ca ci kaw ki nga xam ne moo di Ismaïla Madior Fall a ngi bi nga xam ne atte woon nañ leen ko te mu jàpp nag ne moom keroog ba ñu tegee loxo Ousmane Sonko ci la atte boobu tëb teg lool li nga xam ne moom la Ismaïla Madior Fall di wax saa su ne muy di xamle ne lu jëm ci atte boobu jotewul dara ak teg loxo bi ñuy teg loxo Ousmane Sonko moom maître Ousseynou jàpp na ne loolu xel mënu koo nangu rawatina keroog ba Ousmane Sonko bindee aw kayit xaatim acte de non acquiescement wax ne àtte boobu d'accord kon nag jàpp na ne àtte Adji Sarr Ousmane Sonko tëb na jamono ji lu ci mën di am beneen projet képp lañu xaar ngir xam fan lay mujj. kàddu yi nag moom Maître Ousseynou Fall jàpp na ne mënu ko woon ñàkk yëkkati ndax nag day yéen a ngi teewlu IATV nga xam ne moo di ministre de la justice di wax ay kàddu yoo xam ne méngoowut ak dëgg kon nag mu war na ci moom mu wax dëgg-dëgg mbir yi ak ni mu demee mi ngi ñaaw nag Ousmane Sonko. ak lu jëm ci ay droit ak ni ñu koy salfaani mu ne nag li leen nga xam ne moo di présomption d'innocence mooy nit ki saa suñ ko jàppee fekk attewuñu ko dañuy jàpp ne dañ koy toppee def ko lool nag mu jàpp ne kenn nangu la ko Ousmane Sonko leneen loo xam ne wax na ko mooy lu jëm ci mbiru Ousmane ko ak nguur gi ñu mu koy gaawale mu jàpp nag ne jot na sëkk ñu delloosiwaat seen xel di respecté li leen nga xam ne moo di procédure normale yi bu fekkente ne mbir boo xam ne itteel na Ousmane Sonko maître Ousseynou Fall nag fa mu jeexale mooy lu jëm ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak tëj bi ko tëj ci kaso bi ak tas bi ñu tas parti Pastef mu jàpp nañ ne ñaari mbir yooyu mooy firndeel ne démocratie naxas na ci Sénégal